ñu wéy ñu wéy tuuti rek xaaji taala ñu ngi jéggalu waaw kañ su ko defee fuñ yemoon wal waaw kañ walaw laa iz waaw kañ mu ngi nii waaw kañ waaw kañ bu boobu la waaw kañ bil ifki firi woon nañ ko keroog usbatun mooy aaya 11 bii nag daf ko du te moo tax moom day bàcce rek mu dem moom amul numéro moo tax soo ma nee aaya 11 rek damay réer bii daf ko bàcce rek mu dem waaw gis naa ko usbatun minkum usba fu ko arab waxee rek mooy mbooloo la moo tax boo demee ci Mouhamadoul Mansour Seydi Mouhamadoul Mansour borom daara yi bañ fi attaqué yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ŋàññi lu mu wax ca xasidaam ba ah tabbat yataakum ah fa tabbat yadaakum ayyuhal mbooloo lañ wax nañ ne li ci gën not nag sayyidatuna na nee na juróom-ñeent la ñuy tàmbalee jëm kaw du yées mukk juróom-ñeent usba fu ko arab waxee rek du yées juróom-ñeent juróom-ñeent la jëm kaw boroom xam-xam bu rëy bee ko wax nag sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha kon waaye kay doonoon seen seen raïs raïsul munafiq wala raïsul munafiquuna ki nga xam ne moo ko moo ko fen nu ñu waxoon nati Abdoulaye waaw Abdoulaye ibnu Ubay Zalul moo ko fen nit a yàgg fen nit a yàgg fen te mën a kacc ku toll ni soxna yonent bi nga mën a jël lu toll noonu teg ko ci loosam waaye yàlla bu naree dara day def dara du def du yàlla dafa xereñ bu naree mbir day def mbir boobu ñaar bëggoon na yëkkati daraja sayyidatuna Aïcha te xam ne kii mënu ko fee jaamu yàlla yàlla bu namee yëkkati sa daraja alaaj taala day bàyyi gaa yi di wax ci yow waaw di sànni ci yow loo xam ne ay mbalit rek la te dara du ca dëgg moo tax Serigne Cheikh Tidiane si suñ Serigne bu baax boobu boobule mu ne su ma yëgoon li ma nit ñi yekk yëpp ñu yokk ko mu ne ndax li ma am ci yàlla yëpp ci loolu laa ko jëlee mu ne lu dul Cheikh Tidiane nga ca maternité ba di am doom ci lu bon rek dégg naa ko mu ne waaye dara dérangé wu ma ci nag. te ku ku gis yonent bi wala kum fi rasulillahi uswatun xasana li ko dal moos ak liñ ko wax saaxirun majunun mu ngi nii nga di ko jàng soo noonu damaa bëgg yonent bi ba tëb ko ci kaamil bi génn nga ci lislaam maa la ko wax soo noonu man ni rasulullahi rek laa bëgg bëgguma dégg ku koy wax safaan kon lii du ko jàng mukk génn nga ci lislaam fokk nga jàng ko saaxirun majunun firi ko saaxirun njaberkat nga majnuun bu mën a kàcc bu dof dañ laa njabar ba nga dof moo tax ngay wax lii bu la neexee nga firee ko noonu ak beneen ba asaatirul awwalina xàll mbologaan ni mag ñu njëkk ña rek nga fi indi waxoo fi tus loolu lay firi waaw asaatirul awwalin loolu lay firi xàll mbologaanu mag ñu njëkk ña dong nga fi wax waaye waxoo fi dara mu ni ko muñ yeneen yi nga xam ne xadis la sayyidatuna Fatima soloo ko yonent bi sëgg na sujud Abu Jahlin ñëw jël loxoom jël euh, jël tànkam teg ci loosam yonent bi mënta siggi mu ne ko xam nga su ma neexoon rey la yonent bi tontuwul ba mu teggi tànkam yonent bi taaye sëlmal ne ko dee ci loxol yàlla la nekk Fatima di jooy ndax beneen bi dafa sëgg di julli ñu sotti ko mbuubiti suuf suuf saleñ beeñ bi sotti ko ko njañ léegi lépp ba daana ko mënatoo ko gis keroog nag Sayyidatuna Fatima xol bi jeex na mu ne ko papa lii lu ko jar mu ne ko yàllaa ko jar dox na ci àll bi dox dox dox dox mission ba sonn tëdd ci benn taatu garab di noppalu ndikete benn yéefar a nga koy tëru ci kaw xam nga muur ak muutaa muuraake ndikete moom mu ngi koy tëru ci àll bi pour ne leen fekk boobu wax na gaa yi ne leen dinaa leen indil bopp rasulullah di ko tëru ci àll bi yonent bi dox ba sonn ñëw tëdd ci taatu garab gi ngegenoo ay dàllam yéefar bi ne waaw lii muur laa muuraake ki ma doon tëru nag mu ñëw tëdd ci suufu garab gi ma yéeg di ko tëru ne kii rek tey laa koy am te boobu jaasi ji lum ci gor mu dagg mu rocc jaasi ji di wàcc ndànk yonent baa ngi tëdd rek muy wàcc ndànk ba ci taatu garab gi ba waaye cëppeeluwul nag ba tiim ko ba mu wóor ko ne bu dóoree rek bopp bi lay dagg mu xacc naka la xàcc rek jibril ñëw pel jaasi ji mu ne kandang yonent bi jóg ne xifit xool muy jaasi mu jël ko téen gis waa ji ci kaw ni ko yow looy def fii mu ne ko dara yow doomu nit ku baax nga mbaax dong lañ xam ci yow kenn mësula xamee safaan sooy def ci man rek ma dem ca mag ña jéggal ma rek yonent bi ne ko wàccal mu wàcc mu ne ko maag kana nekk fii mu ne ko man ak yow mu ne ko déedéet maag kana fi ne mu ne ko man ak yow mu ne ko déedéet maag kana mu ne ko man ak yow mu ne ko boo xamul ki ñu ñetteel mooy rabbul izzati wal jabarut man ak yow ak yàllaa fi nekk ah, loo yaakaar ne moom laa lay def bi ma bëggee jekku ma jekku la mu ne ko mbaax rek lañ xam ci yow yow ku baax nga boo ma jéggalul looy def yow danga mën safaan mënoo safaan jéggal ma rek ngay def yonent bi jëlul jaasi ji dafa jël jaasi ji jox ko ne ko am mu téye mu ne ko baal naa la déglu li ma la wax bu baax de xam nga mënoon na saisir jaasi ji ne mën naa ko ko jox mu wëlbati ko waat ci sama kaw saisirul jaasi ji daf ko jox jaasi ji ne ko am mu téye mu ne ko baal naa la demal waa ji dox dox dox manta dem ne ko mel baal gi baal gi lu tax nga boole ci jox ma jaasi ji muy nekk dama xam ne ki ma musal gisuma la ki ma gis ba musal ma ci yow su ma la joxee jaasi yi jiit mooy continuer di ma musal ci yow waa ji wëññeeku ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ñun ñëpp nañ njàng ci moom yàlla waaw nañ ànd te yàlla rek tax yàlla dong nga fi ne lu dul yàlla neen la waaw du tee nag nga bàyyi xel sa bopp waaye boo àndeek yàlla kenn du la mënal dara foo dégg sama yaakaar a tas da nga yaakaarutoon yàlla yàlla du tas benn yaakaar mukk moo tax kenn du moom moo tax suñ borom Abdullah ibnu Ubay moomu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam militaires yi xam nañ li may wax ñoom maas ñoom euh, ma euh, ñële xam nañ li may wax dafa am armée damay fàtte tur bi toujours keroog kii capitaine waxoon na ma ko léegi commandant la euh, commandant waxoon na ma ko ca koor ga ci benn conférence militaires yi am na lu ñuy tuddee bu bu guerre jeexee ñooy des ginnaaw di ramasse bagage yi am na lu ñu leen tuddee yonent bi daf ko amoon daf ko amoon ñoom yonent baa ngi ci décret woon jox ko muy kilifa ji mooy safwaan safwaan la ko waxoon ne ko tànnal ci ay gone ñoo xam ne bu xare bi jeexee ñooy mujj bagage yi nga xam ne dañ ko fa naroon fàtte yëpp ñu récupérer ko yëpp ko ci gëlëm indi ko safwaan nag moo doon seen njiit gis nga yonent bi hasard amul boo xoolee fi safwaan di teer di nga xam ne liñ tuumaal saydatuna Aïcha ay kàcc la Safwaan saydatuna Aïcha bi muy wax ak yonent bi daf ko ne sayda karawaan bi dañ dem li tax saydatuna Aïcha daan dem xam nga yonent bi kenn du moom mënoon na ne bu fekkoon jihaad la mënoon naa toog yeble waaye su ma juumut Maodo xare yi mu wax ne moom la yonent bi ute yim ci ute bariwul te nganta tax te bu daan dem saydatuna Aïcha day dem bari néew na saydatuna Aïcha xare bu mu ci wuti ndax a tax mu daan dem dëfal ak faj yàlla daf ko mayoon xam-xamu médecine composition xobi garab yi moo ko gënoon a xam ci kaw suuf garab gu mu gis xam na lu muy faj moom saydatuna Aïcha garab bu mu gis rek xam na lu muy faj ñi mosaan di blessé nag ci guerre bi ñii ñu cor leen ñii ñu dagg seen yaram mooy def composition xobi garab yi yii mu def ko sunguf dagg-dagg yi mu def ko ci jël xob bi taf ci takk bu ci am ñetti fan rek wow koŋ loolu yàlla def ko ci mayoon moo tax yonent bi daan ko yóbbaale bu demee dañ koy defal xayma spécial boo xam ne moom rek a fay nekk ñi blessé ñëpp ñu di ko indi ci moom mu di leen faj boobu nag xare boobu nag na ay Aïcha moom mujj ñibbi bokk ci ñi mujj ñibbi Safwan ak del rek moo ko moo ko des ginnaaw bi mu ñëwee nag bay waaje yegg si Medinatul Munawwara caqam dagg Maodo boobu la wax man boobu laay jël caqam dagg mu di ko for muy forper yi mu wàcc nag di forper yi am na ñu ne daf doon tuur ndox bu ci mën a am rek waaye Maodo daal ba gën a ma am respect la jël mooy caq caqam moo dagg mu di ko for xam nga jigéen dafa bëgg takkaay te per am na per yu cher est-ce que am xam ngeen ne am na per yoo xam ne moo gën a cher wurus maa ngi dégg Serigne Cheikh Tidiane si wax ko bés mu ne am na ci per boo xam ne maa ngi ko jëndee Paris maa ngi ko jëndee vingt cinq million benn per per Serigne Cheikh laa digg mox ki ci gémmiñam xam nga per boobu gën a seer wurus bon mu ne benn pierre la pierre ci pierre lañ koy liggéey benn genre xeer la ah waaw kañ waaw kon pour damay layal na Aïcha ki naan caq bu dagg rek kooku lay waxal te forsa alal ak défendre sa alal ci jaamu yàlla la bokk moo tax yonent bi nee na kuy défendre sa alal ba ñu rey la shahid nga Sayyidatuna Aïcha wàcc di for per yi Safwaan yem ci Sayyidatuna Aïcha nee na dégguma mu wax benn baat ak man lu dut inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kii kan la Aïcha mu ne ko mu ne ko lan la mu ne ko sama per ak dagg waaye for naa ko sama caq dagg waaye for naa per yi nee na mu yësal gëlëm gi ma yéeg mu dàq gëlëm gi topp ak gëlëmam ci sama kaw nee waxaatuñ ma moom bañ yegg si ci dëkk bi Abdoulaye ibnu Ubay séen leen ñoom ñaar ñuy dugg si rek mu dugg ci biir dëkk bi nee ah yéen yëgu leen lu xew foo fekk fenkat aa lay tàmbale maa la ko wax ah, yéen yéen li yéen li ngeen gis dal na seen xel ñu ne lan mu ne ay ak Safwaan ah guddi gii guddi gii xoolal heure bi ñegg si xoolal xoolal xam nga naa fekk du wolof nee na chet euh, cheytaani waxul dëgg waaye yàq na xel rek rumeur bi commencé daw cheytaani dugg ci nag ñu ne aw ah, loolu kañ dëgg la moom kañ gis nga à cette heure laa ñuy door a yegg si fuñ newoon fuñ jàddoon ñoom ñaar à cette heure laa c'est louche ñu commencé am Aïcha indi Aïcha am Aïcha indi ñu di ko 24 heures di ko euh, euh, tës ala in lépp ñu dugal ko ci wax ji yëgg ci Seydatuna Seydna Aboubacar Seydna Aboubacar ne ah man de maa ko jur su ma ci waxee dañ naan njureel gee tax mënuma ci wax am ku jëw ci Seydna Omar ne ko waaw yow wax ji dégguma la nga wax ci de xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu xew mu ne ko ah yëgoo safwaan ak Aïcha mu ne ko safwaan ak Aïcha ba ci lan mu ne ko ah ñoo mujj ñëw mu ne ko après mu ne ko xam nga la ca topp waaye yow tam mu ne ko ah waaw wax nga dëgg sa ndey de doon na njaaloo ba bañ ko fële barab sangam <laughs> i yow man ngay wax man sama mu ne ko waaw sa doon na njaaloo bañ jàpp ko xanaa yëgoo ko woon mu mu ne ah yow kon sa nopp guddut di yëgoo woon ne sa ndey njaaloo nafi fi bañ jàpp ko non Omar bu ma ko waxati nag mu ne ko waaw yow nooy nangoo sa ndey set ummul muminina ndey jullit ñëpp taq yaa bon boo ma ko waxatee rek ma def la ko kenn ñemeetu la ñëw ci moom wax ko moom Seydina Omar moom noonu la réglé mbir mi xam nga nit bu ñëwee ci yow di la wax yenn yi rek bukki bu ba dabee waxambaane ci doxin wala ku ñëw ci yow wax la yenn wax yi rentré ko ca teel mu xam boppam waaye bu ñëwee ci yow naan la ah yow yëg nga li Chérif Ibrahima def nga nekk ko noonu def mu ne toj na dëkk bi de la yaa ngi koy encouragé pour mu yow xam ay yëgoo li xew lu xew waaye boo ko nee bëggumaa yëg lu xew sama yoon newul ci lu xew du sori maa la ko wax du sori kon nit ñi ñooy encouragé fenkat yi kenn ñemeetu la wax ak Seydina Omar wax ji yegg ci yonent bi bari nag lool yonent bi woo Seydatuna Aïcha mu ñëw mu ne ko dama bëggoon nga jël sa quelque bagaas dem toog sa kër pàppa ba wax ji leer lii moo indi fitna wi Seydatuna Aïcha ne ko ah mbaadu da nga koo gëm mu ne ko gëwuma ci dara sax waaye dam bëgg nga dem rek toog ba mu leer xa xoolal lii xoolal lii ñi def lii danañ bàyyi kër sëriñ si nga yàkka ñi def lii daa ñu bàyyi sa biir kër gi yow taala ak Chérif Ibrahima ñi def lii daa ñu bàyyi daayira yi ñi def lii daa daa ñu bàyyi fédération yi duñ bàyyi fen duñ bàyyi bureau yi duñ bàyyi jàkka yi duñ bàyyi fen ndax ñooñu seeni i maama ngi fi ba tey seen sët yaa ngi fii dañ ne muut rek làqatu ci biir nit ñi waaye seen sët yaa ngi fi ni ngay toogee naan Chérif Abdoulaye bii sëtu yonent bi la sëtu Abu Jahlin yaa ngi fii sëti Abu Lahab yaa ngi fii yàlla def waaw Diop yàlla def biñ ñëwee yonent bi ne ko demal sa kër bàyyi ba wax ji leer Seydatuna Aïcha jël quelques bagages am dem toog fa weer fukki fan muy 40 jours ci la xadiisul ifki bii door a wàcc ci la aaya bi eh, aaya bi ñu tuddee xadiisul ifki ci lay door a wàcc waaye yàlla mooy noble waa yonent bi tamit kenn nga noble pire yàlla ne ko xam nga nooy def comme yaa ko yebaloon kër baayam solal sa dàll dem fekki ko kër baayam jàng laaye mu dégg ko xam nga mënoon na convoquer Sayyidatuna Aïcha waaye yàlla def ko ne solal sa dàll dem kër Aboubacar jàng laaye ji mu dégg ko yonent bi yegg si sallallahu alayhi wa sallam nuyoo Seydina Aboubacar fay ko mu ne ko ana Aïcha mu ne ko te yonent bi wax naa leen yeggoon na ci daan ko wooyee naka ay na kay fa tiiki naka seen kooku daawul tudd tur wi sax ci diggante bi turu Sayyidatuna Aïsa ba kay fa tiiki naka seen ndaw soosu xam nga yàq baaxul ci xale bu tuuti boobu Sayyidatuna Aïsa ñaata at la am waxoon nañ ko fi déedéet jàpp ngeen ko treize ans jëm quatorze ans taala lii métti na alaaji taala treize ans boobu sayyidatuna Aïcha treize ans la am jëm quatorze ans coow li bari ci noppam waaye muy jàmbar joo xam ni yàlla dënku ko fit ak pas-pas bi mu demee ba yonent bi yegg si ne Seydina Aboubacar ana sayyidatuna Aïcha mu ne ko mu ngi ci néeg bi mu ne ko wool ma ko mu woo ko mu ñëw toog Seydina Aboubacar toog yonent bi toog waaye yonent bi kenn gënu ko yor toog na juróomi minute ne pat door a wax Seydatuna Aïcha waxul Seydina Aboubacar de mu ne Seydatuna Aïcha ndax mën naa wax est-ce que dégg ngeen jàngale bi waxul Seydina Aboubacar de mii borom kër gi dafa xam ne yóbbante bi Seydatuna Aïcha moo ko moom moo tax mu ne saydatuna Aïcha est-ce que mën naa wax may nga ma ma wax saydatuna Aïcha ne ko waxal waaye booy wax waxal dëgg de dal di ko joxoñ ne ko booy wax waxal dëgg rek Seydina Aboubacar jóg bëgg a toj nopp bi ne ko kii bu waxul dëgg kuy wax dëgg yonent bi téye loxoom ne ko Aboubacar mu ne ko am mu ne ko ah bu fekkee sa doom ngay pes ma bàyyi la am nga ci droit ndax yaa ko jur waaye bu fekkee sama soxna ngay pes nag sama soxna sama digganteeg moom sa yoon nekku ci dégg nga li ma lay wax mu ne yalax loxoom ne ko sa soxna la du sama doom Sayyidatuna Aïcha ne ko ah kon dese nga mbëggeel ci man ba tey gis nga genn wàllu problème bi réglé ci la mu ne ah kon dese nga mbëggeel ci man ba tey waxal yonent bi nag jàng laaye ji walaw laa is sami'tumu mooy laaye ji commencé nag di jàng ba mu yegg sayyidatuna Aïcha di bas basi di jooy jóg sayyidina Abubakar ne ko foo jëm mu ne ko damay sant yàlla mu ne ko tee ngaa sant rasulullah mu ne ko biñ may tuumaal mu ngi fi woon te munu ci dara ki ma setal laay sant waaye du moom dugg ci biir néeg bi julli ñaari rakk sëlmal génn ñëw toog yonent bi ne ko man lam yashkuri naa sa lam yashkuri laa Seydina Aboubacar fàttali ko law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin mu door a jox loxo yonent bi ne ko baal màq keroog la joxoñ boppam nag moom Seydatuna Aïcha ne ana siddiqatun bintu siddiq fii ma toog di wax ak yéen yéeg naa ci darajay siddiqiya te li ma ko may mooy coow lu bari li te sama baay mii siddiq la maa ngi moom a yem daraja fi mu ne xam nga lu muy niru xale bu tuuti bu am ñetti at fekk yaayam di omelette di toj nen yi rek di sotti daan yaay yaa ngi yàqay nen de waaye billaay bu paree ba mu ko doom mosal dana xam ne yàquloon xale bu xale bu fekk yaayam di omelette di toj nen yi di sotti di toj di sotti dafa naan yaay yaa ngi yàq nen yi bàyyi ko nii waaye billaay bu paree dana xam ne yaayam yàqutoon yàlla nag buy defar day mel ni kuy yàq fekk day defal ordre waaw ndax xamee ci ñi gëm ak ñi gëmul yàlla xam na leen sax waaye dafa bëgg nit ñi ràññee leen yàlla dara ump ko waaye dafa bëgg nit ñi lañ ràññee leen moo tax muy indi nattu yi moo tax wolof moo ko firi nattu yàlla daf lay natt sa digganteek moom noo ci toll loolay nattu daf lay natt ni la mesure yi bi di jëlee les balaa laa jox benn cër moom yàlla daf lay natt ba xam ndax attan nga ko ni tailleur bi di jëlee sa mesure pour bañ mu yow ëpp wala mu yumbax wala mu seere noonu la yàlla di jëlee ci yow it mesure balaa laa yen dara dana la nattu ba xam ndax di ko attan wala doo ko attan mu door la ko yen Serigne Cheikh Tidiane si ne radiyallahu anhu mu ne kenn ku nekk na xam ne ni cëram toll ci yàlla noonu la ay nattoom di toll ci yàlla ku la ko ëppale rek moo la ëpp cër ci yàlla moo tax law laa is sami'tumuhu suñ borom ne doonte ba ngeen ko déggee xultum ngeen wax ni ah déet du noonu law law laa is jamono ba nga xamee ni doonte jamono ba nga xamee ne is mooy xiina jamono ba nga xamee ne sami'tumuhu dégg ngeen wax ju bon jooju zannal muminina ngeen naa muminuuna ngeen naa lii njorti jullit ñu góor ñi la wal muminaati ak ñu jigéen ñi bi an fusihim seen bakkan la rek waaye du yàlla ah mu ne waaye bu leen yaakaar ne wax ji kim jëm ci moom ak keneen ku mel ni moom xayran yiw la rek gis nga bu la yàlla di nattoo nit ñi di wax ci yow wax jooju yëpp yiw la lay jura waaye lu tee nag yéen ñi koy wax ak ñi koy déglu mooy li ma wax léegi ku ñëw ci yow di kàcc fëlal gémmiñam bu ko may fu mu waxe fël fëlal gémmiñam gaaw koo fël moom la yàlla di jàngale nii mu ne lu teewoon ngeen waqaalu ngeen wax ne haada wax ji ifkun sos la mu bii nun bu wér waaye amut waaye ku nekk naan mën naa nekk de ndax 10 heures lañ fi yegg si mën naa nekk kañ ndax min wi moom fa ñu newoon min wi góor ak jigéen min wi xam nga ne kon dara baaxut yàlla ne wax ja ba ngeen ko déggee lu tax ngeen ne rek njort lu ñaaw la te ngeen jàpp ci yiw rek yéen waaye kim jëm ci moom it yiw la ñaari prix la am xam nga boo lu moom la wolof wolof di wax ni loo xool gis ci lu rafet rek mu rafet waaye loo xool gis ci lu ñaaw mu ñaaw kenn mënu ci dara am na koo xam ne boo ko wonoon lu rafet it mu ne lii lu ñaaw la am na koo xam ne lu mbir ñaaw ñaaw ñaaw dana ko rafetal moom moom la yàlla di jàngale yow nag bokkal ci ñoo xam ne buñ gisoon lu ñaaw sax dañ ko rafetal moo tax mu ne na ngeen wax lu teewoon waqaalu ñu wax ne haada li ifkun sos la mu biinu bu biir law laa doonte woon ñoom mbooloo mu jaa ñu indi alayhi ci fen wi ak wax ji bi arbaati shuhada comme dañ ne dafa njaaloo moom saydatuna Aïcha yàlla ne lu teewoon ñu indi ñeenti seede amuñu ñeenti seede ba pare tuumaal ko njaaloo yàllaa ngi setal de saydatuna Aïcha ko am cër la yàllaa koy setalal boppam mu ne bañ bañu ko ko tuumaal waaye indi leen seede mu ne xam nga amu leen seede bi arbaati ci ñeent shuhada ci ay seede ah wa is lam yaatu su fekkee ne indiwuñ bi shuhada yi ci seede yii fa ulaayika ñoom ñi inda allahi fa yàlla hum ñoom alkaasibuuna ñooy fenkat yi ba fi tuumaal njaalo te indi woo ñeenti seede kaccoor nga fenkat nga koo fi tuumaal njaaroo rek war nga indi ñeenti seede niñ ko fi waxee woon ci début ba azania bañ koy firi ñeenti seede yi doo woote dangay ngay bàyyi ñoom ñëpp ñu ñëw gisal seen bopp en l'acte amul woote de duma ko gis rek ne imam mbay kaay imam sey kaay imam si imam gay kaay imam abdou aziz kaay ñu ñëw ma may yor ndànk na leen xool leen niig baa ngi nii waajaa ngi nii xool leen te bu ñëwee fekk mu jóg tuddatul njaalo ci ñun doonte ñu ngi def mu yaramu neen ku góor ki dungu ku jigéen ki dungu tuddatul njaalo ndax jàppoo leen yàlla dafa suturaal nit ah yow waaw yow sa xelay daw rek waaye fekkoo leen bu yeboo nga fekk leen ñu ne du mu ñoom ñaar ni leen seen ndey juróo te fekkee woo acte bi tuddatut njaalo ci ñun fa yàlla nag yàllaa xam nu mu ko tuddee ndax yàlla moom huwa samiun basir waaye moom mi nga xam ne samiun basir moo décrété lii yàllaay wax de lii texte la ci alquran fokk nga fekkee acte bi mooy sàkkaraam di dem di dikk nu nga ko gisee sa beneen morom mukallaf ñëw yem ci moom itam te woowoo ko muy ñaar keneen ñëw yem ci te woowoo ko muy ñett keneen ñëw yem ci te woowoo ko muy ñeenti yéen ñeenti ngeen gisandoor ko ci seen juróom ñaata bët juróom-ñetti bët awraam di dem sàkkara si di dem di dikk ngeen mën a dem nag boole ji ko yéen ñëpp ngeen wax ne fekkee nañ ko gis nañ ko sàkkaram di dem di dikk ci lañ koy door a àtte yàlla ne su loolu amul yow ku mën a fen nga yow mi ko wax xam nga ñaar la doonte gis nga ko yàlla ne la maa la ko gën a gis te waxuma ko lu tax nga koy fen yow moo tax mu tuddee la fenkat su toogee ba ñeent yi fekk ko fa nag moo xaw yi suturaas boppam wala déet xawee sa suturaas bopp nag kenn dootu la suturaas ndax yàlla bëgg na sutura in laaha sitrun kon suñ borom moo bëggul kuy weer nit suñ borom moo bëggul kuy toroxal nit mënoon na rek boo ko gisee benn yoon rek doy na waaye ñeenti sedd bi arbaati shuhada la wax ñeenti seede ngay ut ngay la ñuy doon kenn du woo moromam moo tax yombul suturaalante rek suturaalante loolu de xanaa ci kaw mbedd dong la mën a amee ci kaw yoon wu ñëpp di jaar boole ci te waaja di ku bon ah? ah man de moo tax ci dundu yonent bi mosuma dégg ko njàpp ci njaalo jànguma ko ci fen te njaaloo fa woon nag xus jeex na mën nga benn mën na la fa fekk de ñaar waaye ñaar ya fa des balaa ñëw fekk nga pare wala nga daw wala déet doo leen fa xaar te xam nga sàcc moom njaalo moom sàcc la te xam nga sàcc moom bëggul ku ko yëg boo koy yëg rek fox na ah? waaw yàlla waxul caméra dañ leen fa fekk ñu caméra leen yaa leen caméra yow kenn <laughs> caméra bi gën a rëy kañ mooy juróom-ñetti bët gisandoor ko loolu la yàlla bëgg yàlla di xaar bu garaaw boobu. waaw am. waaw mooy xanaa bu yëpp teewee dañ koy rey. dañ waaw bu dee caw dañ koy caw parce que yàlla moo bëggul ku gaaw jël bakkan comme bu sangewoo dañ koy rey te yàlla bëggul ñu gaaw a rey nit moo man ahyaahaa jaa tax fa ka annama ahya naasa jamian loolu nag mooy tax yàlla bëggul kuy gaaw te ki ñuy gëte nit gëten mooy ki ñuy caw téeméeri yar ci penc mi kooku xam nga toroxal nit la fokk mbooloo fekkee ko ñu di ko caw yàlla bëggul ku ñuy toroxal bëggul ku ñuy rey rey ci loxom la nekk moo tax mu bëgg ñu bàyyi ko ci loxoom bi ci desit nag yàlla nee na huwa tawaabu rahim may nangul tuub ku ma neex yaa ayyuha alladina amanu taq taqnatu min rahmatillah lu tax inna allaha yaghfiru zunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim yàlla ne yow mi dem beneen nukk ki bàkkaar tilim nukk ba yaakaaratoo fooy sete bul dagg sa yërmande ci man deseel naa la ba tey yërmande tàllal ma loxo rek ma yóotu la ma récupérer la defar la ba mel ni ma bëgg man dugalaat la ci biir géew bi yàlla ne bul découragé mukk jox ma sa loxo rek maa ngi tàllal rek di la xaar soo ciy teg ma teg ci indi la ba teg la ci gaa yi fiñ nekk ma boole la ak ci ñoom bàyyi la ci ran bi ngay dox yàlla dafa baax ñun ñoo fi nekk rek ah jahannama xaalidiina fiha jahannama am na xaalidiina fiha am na waaye ñun yàlla nañu ump yàlla nañu ump yàlla nañu ump ump suñuy njaboot yëpp waaw ah, ak képp kuy jullit ñi dul jullit ndax suñ yoon nekkul ci ñoom yóbbuwuñ leen safara xañuñ leen àjjana yàlla yor seen atte suñ yoon newul ci ñoom moo tax suñ borom ne nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi tuumaal nit njaalo waxoon nañ fi ku tuumaal sa jabar njaalo passé nañ ko la ngay wax da ngay waat ñeenti waat mu waat ñeenti waat te dal jabar ja daf lay xaram ba yowmal qiyaam dootu la dagal gis nga foofu itam ni mu garaawee moo tax nañ ci def très te nit ñi fi mu ne seen caméra yi yëg da ngay gis caméra de surveillance yi ci kër gi ah ba ba am na am na man sa man moom samay kër yëpp am nañ ko nag waaye ni àddina mel a tax ma def ko fa donc te dañ maa yàgg di euh, sàcc yooyu rek moo tax suñ suñ zawiya bi sàcc nañ ma sàcc sàcc sàcc ba mën a moo tax kër yëpp ma dóor ci caméra de surveillance waaye du du weer kenn te caméra de surveillance yi am na place yoo xam ne boo ko fa defoon tey public dañ la naan dindil ba mu set tubaab yi sax fu ñu ko def dañ la naan place bii caméra de surveillance moo fa ne dañ ko fa war a bind pour nga waajal sa bopp wal caméra cachée yi ñuy def xanaa xamoo ne koo ci porter plainte yóbbu ko ci yoon ñu tëj ko c'est interdit caméra de surveillance fu mu nekk danga nga ko war a bind wax ne fii am na caméra de surveillance bu dee public boo xam ne moomoo ko sañoo ko fa def boo ko fa defee dañ koy dindi comme banque banque yi sax dañ ko fay bind dañ koy bind waaw dañ ko ci war a bind kon moo lay war ne waroo jël sa portable rek eh, déedéet jël bëgg a jàpp sa jabar rek dugal ko ci biir armoire bi wala ut sa caméra su tuuti yooyu tas na kër yi léegi jaaduwul jaaduwul góor bu ko defee jaaduwut pour jàpp jabaram jabar bu ko defee pour jàpp jëkkëram jaaduwul su ko yóbboo police dañ koy tëj moo xam ñoom ñaar ñëpp kum ci mën a doon loolu yëpp yàlla bëggul ku weer nit yow boo demee ba amatoo confiance ci ndaw si bàyyi ko mu dem yow it ndaw si boo demee ba amatoo sa confiance su jëkkër ñaa ngi ko baat dem sa yoon wooy le problème waaye ku ne di ëkk moromam kër gu dootu neex ku xet demee ko sax nga ne ko biig la fi ñëwoon yàlla bëggul kuy ñaaw njort ku ñaw njort la bëgg ñaw njort ak ñaaw njort bu du benn moo tax yàlla dàq ñaaw njort moo tax suñ borom nag ni walaw laa fadlullahi su dutoon ak yërmande yàlla aleykum ci yéen wa rahmatuhu walaw laa fadlullahi bu dutoon ngëneelu yàlla ci yéen maanaam ngënale gu leen yàlla gënale ndax lan kuntum xayra ummatin ja ak rasulullahi mi ci seen biir yàlla ne sudutoon loolu wa rahmatuhu ak yërmandeem fi dunya ci àddina bi wal axirati ak ëllëg ca àllaaxira mu ne ah billaay kon du baax lu mu ci teg la mas massakum kon dana leen jot fiima ci li nga fiima afadtum ci li ngeen sos ci fen wii yàlla ne su dutoon nag rasulullah mi ci seen biir ak gënale gu ma leen gënale xeet yu jëkk ya ak sama yërmande juy daw ci seen biir wax jii rek mënoon a tax ma alag leen yéen ñëpp kenn dootu fi des kon nga xam ne sayyidatuna Aïcha am na doole fa yàlla ah kañ moo tax nag waaw waaw fi dunya wal nag la wax nee na dinaa leen alak fii toroxal leen àllaaxira bon la massakum fi ma afattum fihi adabun adim nee na kon danaa leen mosal mbugal moo xam ne mbugal mu rëy lay doon fii ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira waaye yërmande sama yërmande daw na ci yéen ba noppi te rasulullahi bër bu set mu jéggalul leen moo tax baal naa leen waaye bu mu amati is talaqawnahu mu ne fàttalikul is jamono ba nga xamee ne te talaqawnahu yéen a ngi koy paasante bi alsinatikum ci seen gémmiñ yi ku wax jox sa morom ci seen làmmeñ yi bi alsinatikum ci seen làmmeñ yi eh Aliou Gaye yëg nga li xew Abdou nga li xew eh, Imam Talla yëg nga li xew Moustapha yéen woykat yi bu ngeen demee ngeen waxtaanee koy dégg ngeen li xew yàlla ne man ba may wër di ko wax ci làmmeñ yi waaye gaay ñun ñëpp ñu di ko paasante ci suñuy làmmeñ mu ne xanaa fàttalikuñu ne yàlla am na istalaqawnahu bi alsinatikum mu ne la ma cëb gën a métti nag man yàlla ah wa taxsabuunahu yéen a ngi ko jàpp wax ji hayyinan muy lu doye di def ko ordre du jour rek naaneekaayu attaaya mu ne waaye nag fekk li ngeen di wax jàppee ko wax ju tuuti wa huwa moom wax jooju inda allahi fa yàlla adimun wax ju rëy la yax na yàlla ne yéen a koy tuutal di ko minimiser xam nga loo ciy déggee alaaji taala mu léeg-léeg nga doyadal mbir fekk lu rëy la fa yàlla léeg nga néewal mbir walla nga réyal mbir ba mu rëy fekk lu tus ca yàlla ah waaw dama am lu ma tëb waaw kañ istalaqawnahu li ma way li ma wax rek bii moom day sànni rek istalaqawnahu bi alsinatikum waaw kay gis nga daf ko indee nii yóbbu bële fële mu ne is jamono ba nga xamee ne xaw na talaqawnahu yéen a ngi koy paasante bi alsinatikum ci seen làmmeñ yi wa na yéen a ngi wax bi afwaahihim ci seen gémmiñ yi gis nga làmmiñ ak gémmiñ yëpp la yàlla tudd wa taquluna ngeen di wax bi afwaahihim ci seen gémmiñ yi maa wax joo xam ne laysa lakum déet di leen ñeel bii ci wax ja ilmun benn xam-xam wa taxsabuunahu ngeen jàpp wax ja nag hayyinan muy lu doye di wa huwa moom fekk wax ja inda allahi fa yàlla azimun wax ju rëy la bàkkaar bu mag la yàlla bëggul kuy fo baaxul surtout foyee wax boo xam ne bu xesee génn xam nga wax kàddul bu xesee génn mënatoo ci dara la muy yàq mënatoo wóor di ko defar moo tax balaa kenn di wax na nga xam li ngay wax surtout nag jamono bii nga xam ne seen yii boo ci waxee waa États-Unis jot nañ ko waa France jot ci ñëpp jot ci waay waay boo ciy wax waxal yiw hmm? ah? waaw naan partagé leen ko billaay sa bosa ñëwut ker bu sa bos ñëwee doo bëgg ku ko partage maa la ko kamaatu diinu tub daanu ah waaw jeex na ka partagé woon kanoon partagé leen ko mu nga 100 te yàlla xam kañ lay génn waaw